salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre chaîne préférée Dakarnet dañu kontaan bu baax a baax saa su ne di leen gunge si seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gise ak gise ak ngeen ci ànd ak saa sune ne Ousin ngeen ci ngeen ciy àndal tey ñoom nag benn invité bu spécial alors koo xamante ni voilà chroniqueur la nekk ci télévision bi nga xamante ni mi ngi tudd euh, Sen TV euh, nekk ci rajo aussi euh, Zik FM si émission bi nga xamante ni mooy Grande Gueule ak beneen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Ndoumbelane alors Omar Talla Cheikh ñu ngi lay ziar. Euh, Ouzin maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu internet yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy topp suñu télé bi Dakar. Dakar net mm. donc mu gën a net. Mm. donc euh, di wax ni rek euh, initiative yu mel ni dafa démocratiser l' accès information parce que tey télé à travers outil internet gën yombalal. jot xibaar ak euh, déggante bi te dañu war a gisee ñu waxtaanee li nga xam ni moom moo nekk ci réew mi di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak ci ci weeru koor bi waxtaan ci koor nag bi yomb. Mm-hmm. parce mm-hmm. ma ragal ma koor sax mais mar laa. Mm-hmm. mais bul bul bul may sa euh, sa kii séeréer lu ñu wax xam nga jàpp nañ la fële ca télé ba ak daal yi. <laughs> daal pël yi tey boo ñëwaatee si kii bon mën nañ la mën <laughs> nañ toog mais gars yi séeréer wuñu quoi mais bon sant yàlla parce que dañu nekk ci réew moo xam ni. Euh, diggante séeréer ak euh, tukkuleur mhm. diggante séeréer ak joolaa ñuy mhm. ñuy kàllante ñu nekk ci réew moo xam ni catholique bi ak jullit bi ah, et loolu nag mooy suñu force loolu moo ñu wutee ak ñu bëri kon nag euh, loolu nañ ko sàmm mhm. mu mu gën a rafet d'accord alors dañuy euh, dañuy ubbee waxtaan bi euh, ci actualité d'ailleurs la ñuy la ñuy waxtaane actualité boobu euh, nous oblige naturellement à parler de euh, du président Macky Sall ah mi nga xamante ni donc gis nga ni fan yële passé dafa am lakk bu amoon Linguère ci hôpital màgget Lô démb ci li nga xamante ni moom mooy conseil des ministre bi nee pour gars yi def audit nee na ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu def audit ci hôpital yi nekk Sénégal yëpp. ci loolu est-ce que gisoo boobu dafa waroon sax njëkk balaa problème di am. ba ma je plus à, à des mesures plus fortes quoi malheureusement. waa ji démissionné na. ban waaye moo démissionné. Euh, directeur directeur bi amul responsabilité boobu bu directeur bi démissionné am na ñu waroon démissionné avant directeur bi le ministre de la santé il devait démissionner grand nañ bàyyi caaxaan nañ bàyyi caaxaan parce que lan moo indi wax ji mooy ñeenti liir hmm. ñeenti liir nga xam ni dañu nekk ci structure nataal maanaam xale yi nga xam ni motuñu dañ leen di indi foofu donc buñ leen yóbboo foofu c'est pour seen wér-gu-yaram pour seen sécurité bakkan dafa fort bakkan dafa foor mais Sénégal dañu néewal doole bakkan dañ ko ñàkkal faay la alors je peux pas comprendre ay liir lakk quoi lakk nañ ma baal ci mot bi lakk ba xam quoi yaa a aucune indignation y a mesure qui est prise fan la ñu ci biir hôpital fan ci biir Sénégal il faut loolu am bi loolu amee après ñu def ay annonce wax def saupoudrage le président c'est ce qu'il est en train de faire malheureusement moom su xamul état wu hôpitaux yi sénégalais yi kon jarul muy toog ci réew mi bu xamul jafe-jafe bi sénégalais yi nekkee pour mën a faju kon jarul ñoom ñuy toog ci réew mi c'est ça la wax ji mënut a neex quoi munta neex ça fait mal quoi après directeur hôpital bi il a euh, rendu sa lettre de démission hier sur la presse qu'est-ce qu'on nous dit. Abdoulaye Diouf Sarr nee na dañ ko dàq quoi. non non ci boppam moom motul ministre de la santé grand. non na dem moom il est en train de faire du ndaw rabine sanitaire. Mm -hmm. je reviendrai sur Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. mais docteur bi directeur bi nee na il était obligé mu wut. soxna soo xam ne gynécologue la pour hôpitalu Linguère bi mën a am gynécologue mhm. Kolda région de Kolda amuñu woon gynécologue il a fallu nit ñu commencer see wax pour ñu affecter fa ab gynécologue mm-hmm. est-ce que nous sommes dans un pays wala ce pays seen une blague wala lu xew mm-hmm. pour li ngeen am gynécologue il faut directeur hôpital bi takk jabaru gynécologue gynécologue bon félicitation directeur parce que d'ailleurs sax gynécologue yu bëri si si maa ngi jégalu lu ma lay daggee ñu bëri sax bu ñu la affecté si yi souvent très souvent dañuy dañuy dañuy bañ. oui mais mais loolu problème la ñaari problème la posé benn problème bi mu mooy problème gestion personnelle bi. Mhm. ñu toog Sénégal personnel de santé bi ñu am ñu bëri jàng. am na ñoo xamante ni ba tey ñu ngi ci biir hôpitaux yi musuñu am. Mhm. par six mois lañ leen di fëgg contrat ministre bu ñëw tu ameen ton personnel politique. directeur bu ñëw ci amel say mbokk leer na beneen bi ci biir région yi sénégalais yu bëri bu ñu leen affecté si région yi duñ fa bëgg a dem parce que nañu waxante dëgg Dakar la clinique yi nekk fii la xar xarmat gi nekk mais su fekkee yow da nga jiin waat jël serment ni da nga war a faj fépp fu sénégalais nekk buñ la oh. fooyee war nga faa mën a dem maintenant loolu nag c'est valable ci jàngalekat yi ci magistrat yi parce que condition bi ñu nga xamante ni moom la ñu def ci biir à l'intérieur du Sénégal ba ku nekk hôpital Tamba wala buñ la waxee nañ la yóbbu hôpital Ourossogui ca Matam doo ci sawar tu préfères yóbbu la hôpital bu nekk Dakar wala bu nekk ci ba ci jàngalekat yi ça veut que euh, condition wu Sénégal mooy lan mooy dañu jël yëpp ñu concentré ko ci ci dakaar alors que à l'intérieur bu musiba bu mel nii amul woon jéye bu mel nii su amul woon kenn du xam ni hôpital Magatte Lô am na beneen bi sunu hôpitaux yi balaa sax ñuy wax ak président Ablaye Diouf Sarr. nañ ñu wax ko c'est que grand jàmbaar dañu nekk ci réew moo xam ne man je peux comprendre ñuy politique ak et cetera mais dafa am domaine yoo xamante ni du domaine politique. la santé lu sérieux la santé lu prioritaire la réew moo xam ne euh, jafe-jafe bi ñu am mooy accès à la santé. ñi dëkk pikin soo feebaree nga dem Dominique soo yorul ay moyens doo faju Sénégal rek la nit di feebar ba dee ci hôpital ñu ne la boo fayul facture sa néew doo ko jot Sénégal rek la ñuy toog chaque jour ñu ne nañu xetal nit parce que dañ ko war a defal intervention médicale deux millions trois millions mm-hmm. foofu lañ toll mu neel ni système privé ñeen ñi si ñi ñu jiitee seen bët bu xasanee sax bitim réew la ñu dem fajoo baadoo lay amuñu fu ñu fajoo système sanitaire boobu la ñu am alors on peut pas permettre ñu nekk ci réew boo xamante ni on ne situe jamais les responsabilités réew moo xam ni impunité rek la ñuy def il faut bate la joolaa am nit ñi dee on va pleurer deux jours après on oublie mm. après il faut euh, stade bi am ay xale yu faatu mm. ci ci match championnat on n'a pas pris de responsabilité woowuñu directeur stade ñu ki doon tabax chantier yi woowuñu euh, président ligue sénégalaise football mm-hmm. deux jours trois jours après on oublie mais mm-hmm. lii quatre liir yi am na voilà nit ñi wax nañ ci il faut président génn di ñu wax audit hôpital non quand même dans quel pays sommes-nous c'est-à-dire Macky Sall bu dee toog na fii ci réew mi boobu ba tey xamul ñun suñu hôpital yi lan la ñuy daj et puis coronavirus bi mu ñëwee daf woon yan faiblesse la ñu am mm-hmm. mooy si suñu prise en charge médical mooy suñu problème bu accueil dans nos sanitaire kon tey duñu toog ba fii mu ñëw ay waxu audit hôpitaux yi xam nga la mooy lan mooy dëgg le ministre de la santé joué wul rôle am tey mënoon nañ jël ku mel ni Eva Marie Coll parce que nit la boo xamante ni jàng na ko am na si expérience au niveau international au niveau de l'OMS am na carnet d'adresse respecté nañ ko wala ñu ne mën nañ woo docteur Bousso wala dara bon maintenant Abdoulaye Diouf Sarr nañ ko jël ñu ko seen ministère wu politique yi. mais lii nii c'est du sérieux euh, et pourtant nag am na ñu koy ñu koy ñu koy jaajëfal ah si si si si liggéey bi mu def si corona bi ah am na benn organisation boo xamante ni dafa yëngu ci mbir moomu maanaam di xool dëkk yi nga xamante ni gestion corona bi naka lañ ko diriger donc ñoom jox nañ ko foofu note yu baax alors. waaw mais ñi ko jox note yu baax ñoom la engagé grand grand ñi ko jox note yu baax. man joxuma ko note bu baax parce que ah. les sénégalais souffrent les sénégalais sont malades mm. sénégalais fii la ñu am ñoo xam ni dialyse la ñu soxla appareil dialyse gis ça coûte cher Sénégal lañu toog ñuy jël suñu ay malaat ñu am ay cancer du sein ñu naan ñu appareil mammographie bi nekk Dantec dafa paan dañ ko war a réparer donc ñoom bu fekkee def nañ seen marketing au niveau international ñu leen di wax ay corona jàppale ngeen gëw ma yooyu man li ma gëm mooy nga feebar mën a faj gis nga sénégalais bu ñuy dem di jënd ay ñoqet di dem di jënd ay garabu mbedd parce que garab cher na ci biir Sénégal c'est ça le vrai débat le vrai débat mooy dangay feebar munoo dem ci hôpital bi parce que hôpital bi soo f eggee dañ lay laaj garantie cinquante mille francs feebaral ñu yóbbu la eh, hôpital hôpitalu Pikine mm-hmm. feebaral wala nga am nit koo xamante ni xelam wérul nga yóbbu ko hôpital psychiatrique bu mbaaw nga xool ci yan condition la ñu dugal nit ñi kon man gëwma ñoom li ñuy wax parce que le sénégalais le vrai sénégalais bii dund jànkonteel jafe-jafe nga xamante ni mu ngi daw ci dépense di daw ci lu mu yore njabootam. faj mm. faju nekk jafe-jafe te li may wax priorité mooy le président Macky Sall bi muy jël ay milliards di ko def ci ay stade olympique jam ñaajo ay terre li ko waroon mooy mu xool cartographie mm. sanitaire bi ci biir Sénégal ba sénégalais foo mën a nekk nga mën a faju mais sama mbokk tukulóor ku ci jóge Wuro Sogu ñu war laa indi hôpital principal ambulance amul mm. boobu lañ nekk bu ñu jël nii nag di ñu xëpp ay. ji quoi d' accord Cheikh ah bu ñu ñu gënee avancé ah alors dañuy waxtaan tey si face à la presse bi dèjà xam nga ñoom chaque mois dañuy jàkkaarloo presse bi ñoom benn ba ñaar ba ñetti ministre wax euh, li nga xamante ni seen département lan moo fa nekk. alors tey ci euh, bëccëg gi tey ministre de la culture moom moo fa nekkoon ak ministre de l' élevage ak ministre développement communautaire je pense ah su ma jiwul alors foofu lañuy taxaw si euh, développement agriculture bi la ñuy taxaw mbay mi. moom nee na 1950 ba nii ñu tollu nii Sénégal li mu am ci campagne mbañu ren bi musu ko am depuis 1950 maanaam ba Sénégal amee indépendance ba léegi ci côté ci côté ceeb bi mboq bi dugub bi arachide bi lépp la wax ba sax ñu mi ngi estimer boo xoolee ceeb bi nee nañ am nañ fa ay un million de tonnes 1 euh, million cent lu nekk daal am nañ fa presque ay 1 million bu boo ko calculer daf lay jox deux milliards presque de tonnes. ci ceeb. ci non en ci ci <laughs> ci campagne bi ci li nga <laughs> xam ne Sénégalais bay na ko ren. mais li ma bëgg a mooy. <laughs> Uh-huh. est-ce que sénégalais yi jàpp nga ci atum ren bi. Mm-hmm. loolu def na effet si ñoom. ah mais bu ñu xoolee yenn rapport yi ñu ngi am problème mu insécurité alimentaire. Mm-hmm. ci yenn zone yu Sénégal. à l'intérieur du Sénégal à Matam et cetera euh, ñu ngi du gis ni ci benn zone bi famine di di di di dugg. mais j'ai souri parce que dañu doon wax autosuffisance alimentaire en 2017 on nous parlait d'autosuffisance alimentaire du samay wax président Macky Sall moo jël programme vision am ne autosuffisance alimentaire lay régler alors ba tey on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire beneen débat moo posé wu mooy la sécurité alimentaire mooy tey sa technicien yi xam naa bu ñu ko mënee génnee on a montré tout une famille trois ou quatre personnes dem di buuju ci pollu mbalit lu ñu lekk waxal sa technicien bi na ko monté image boobu. dina dina ko dina ko génne dina ko génne quatre personnes ci buntu ab supermarché toute une famille di wut lu ñu lekk. foofu lañ toll. cette misère sociale alors toog di génne ay chiffres wala di nax sénégalais wala di nax opinion yi naxoo kenn sa bopp ngay nax jàmbar et loolu ñuy wax communication gouvernementale gëwuma ko. face à la presse gëwuma ko parce que pour man acteurs yi nekk ci réew ku ne da ngay jouer sa la presse dina jouer rôle son rôle de régulateur son rôle joxe information et cetera ministre bi su amee fu muy wax nañ dem assemblée c'est ça le vrai ba c'est-à-dire dañoo am ay. Ah, mais mais mais aussi tamit euh, assemblée majorité. waaw waaw waaw tamit est-ce que nekk mais léegi parce que assemblée. Hmm. donte jouwul rôle am. assemblée ma je considère que joué wul rôle am musul parce que suñu système démocratique ak suñu système politique moom moo indi ngay am député majorité kii ne la maay député Macky Sall kii ne la maay député Ablaye Wade parce que ci palin bi la. loolu beneen débat la raw gàddu bi ñi ëppale mais dama ne la lii yoon ab ministre su waree expliquer wu dafa war a dem toog dans les normes ministre baykat bi daa war a dem toog assemblée député yi di ko interoge ci ay programme député yi jàmmaarloog moom waxtaan ak moom xool seen budget saytu su ko defee député bi nga xam ni moo jógee Mbadakhoune dina mën a wax waxal waa Mbadakhoune c'est ça loolu mooy loolu mooy li yoon mais ñëw toog dajale ay journalistes yu ñu tànn ñoom pour jàllale seen communication parce que le président Macky Sall ñi ko dara ñu si bëri ay anciens journalistes la ñu Abdoulaye Wade dina ak ay avocats la mais Macky yi a des gens yoo xamante ni c'est des communicants ñoom ci loolu la ñu nekk quoi donc laal affaire tour lëndëm yooyu gëmuñu ko grand dëkk bi dañu dañ dañu xiif dañu xonet c'est ça la vérité et d'ailleurs pour la dëkk bi dañu sonn sax moom sax loo wax mu ne la ceeb. ceeb waaw surtout bu bu bu corona amee mu ne. naa leen jox ceeb. fan yële bi manifestation amee bu leen fàtte joxoon naa leen ceeb donc finalement bon pour moom le problème du Sénégalais c'est danku ceeb e grand de 1960 à nos jours programme agricole yi ñu am yépp mhm. dama jàpp ni dañu raté le coche man su ma xalaat laay wax mhm. parce que mënuñu am suuf su doy mhm. am ndox bu doy am ndaw yu doy ba pare ba tey lépp lu ñuy dundee ñu koy jéggaane seen une question de souveraineté parce que Thomas Sankara doo doon wax Euh, il faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons mais tey bu ñu ndogoo ñun ñëpp beurre bi xamoo fu mu jógee niin na mbatt boo ñëwee ñu ne la fromage. waaw mais mais mais la faute à qui est-ce nekkul ñun tamit ñun par exemple ceeb bi. yaa ngi dégg ceeb bi ñuy bayee fii. Mm. yenn gars yi dañu naan bon ceeb bi dafa bëri ay ay ay xeer. soble bi ñorul bi tamit dañ naan soble bi ñorul bi boo ko xoojee lii ak lii. voilà tout est question de volonté politique c'est-à-dire on commence par première ay colorant la kenn mënul am wér-gu-yaram première mesure voilà on a beaucoup de mangue bi may ñëw léegi syndicat laa romb mangue yi bàyyiwuñ ko. buuj nga wala buuj foofu. non bàyyi man man Seck doon moon buuj man dama doon capp ko xam nga buuj ragal yi. buuj xam nga mais dama la bëgg wax. circuit euh, bi mu jógee xaal yi ma koy gis. may gis euh, fruits yi Casamance lay jóg yi feneen mais ci ci diggante bi ñaata moo ci nëb. Mm. ñoo am ay unité de transformation suñu usines yi. ñu produire ñoo xam ne dañuy transformer ñun li ñu moom suñu ay jus bopp nga xamante ni dinañ ko mën a commercialiser made in Sénégal sénégalais bi di naan ci jus di taxu Sénégal état bi jël ay mesures waxuma mu interdire état mun na am ay ay mesures tarifaires ou douanières pour euh, fixer yenn prix nga xam ni kuy demante ni jëli jus bu ñu yokkee taxe taxe jus bi doo ko sawara dem importer yooyu yëpp ay leviers yu ñu mën a def mais tey ñaax nit ñi ci mbay mais ñu fexe ba Hilaire ak Daba ñu remplacer ko ni ñu koy remplacer mooy nit ñi ñu tàggat leen ci technique agricole ba ñu mën a def wàllu agronomie euh, tey ñu ngi ñu ngi nekk ci suuf su bëri mu ngi fi mais la malheureusement multinationales yi la ñuy fexe ñoom ñu jox suuf wala ñi nga xam ne ñoom ñooy les baykat du dimanche mais tey mënoo am politique agricole te feeñul. ci sa dundin nan lay feeñee ci sa dundin mooy li mu doon wax sànq naan autosuffisance alimentaire ba nga mënu ko regle li tax nga mun ko régler parce que ñun traite gerte gi lañ topp ba tey depuis temps colonisation ba tey même système bi ñu tegoon moom la ñu continuer euh, bay ñetti weer voilà Sonacos a du mal à faire face à la concurrence chinois yi léegi ñoom ñooy ñëw jënd gerte gi ak ñeneen ak ñeneen donc ça veut dire que euh, tey yàlla may nañu suuf yàlla may nañu ndox am na dëkk yoo xam ni amuñu suuf si ñu am amuñu ndox mi ñu am mais ñoom ñu ngi góor góorgóorlu di bayal ci seen bopp mais ñun malheureusement volonté bi ñu am euh, lépp li lu bëri bitim réew la et quand tu parles ceeb complexe boobu am na ci. parce que man tukulóor laa da ngay ñëw dañ la indi ceeb bi jóge Fuuta. da nga koy xam dañ ciy defar cere mën nañ ci defar suñu njóor bi buñ ko toggee mu neex te jigéenu Sénégal mun na togg. bu ci buñ ko. tàmmalee suñu bopp farlu si ñu defar ko mais ñun ñoo bëgg ay riz chinois ay riz brisé riz taichi finalement nous ne nous ne consommons même pas sénégalais donc il reste des efforts à faire mais quand même fi toog naan nit ñaa ngi dund c'est pas vrai ministre bu ko waxul dëgg Sénégal lañu sonn même soble bi sax ah doguma la même soble bi sax yaa ngi doon dégg waa zone des Niayes ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di euh, bay soble bi hmm. soble soble Sénégal bi ñu ngi doon ñu ngi doon kaas ñoom tamit parce que importé bi dafa ñëwoon dugg si seen biir bloqué seen liggéey ba seen soble employé sax mi ngi doon commencé di di yàqu mais ba seen liggéey sax si ñoom si seen waaw mais je crois que am na ku fi nekkoon benn année ministre du commerce nguuru Macky Sall après il avait jëloon na ay mesures je crois si si soble xaw ma si mm-hmm. soble def ay mesures restrictives pour permettre ñi écouler au moment bu ma lay wax tu vas aller euh, au nord du Sénégal soble baa ngi nëpp ci loxo ñenn ñi parce que amuñu fuñ ko écouler mm-hmm. je reçois des messages on me le dit et puis j'ai des parents yoo xam ne ci mbay la ñu nekk mm-hmm. mais tey dama la wax état dafa am ay moyens ay levier yu mu mën a activer. Mhm. état am na ministère du commerce moom mooy réguler yenn yi maintenant ci yenn produits yi mën nga def nga li ñuy wax ay barrières barrières douanières ou barrières fiscales c'est-à-dire ci tel produit nga yokku euh, tarif douanier bi de telle sorte que ki doon importer du ko sawara a parce que pour moom bu ko importer li mu ciy fay ci ay taxes loolu ay mesures la yoo xam ni mhm. état mun na ko utiliser. Mhm. état mun na def mun na jël tamit mesure interdire benn produit pour mhm. permettre produit yi nekk ci moom. voilà loolu nag protectionisme économique la lay nduru mais tey comme àdduna bi dafa open. Euh, munoo tëju. parce que yow yaa ngi dem di exploiter yeneen marché. munuloo bañ ñu exploiter semence maintenant le mooy. nga fexe ba yow say say ñi nekk ci sa réew ñu produire de la qualité et pour ñu produire de la qualité malheureusement am nañ fi ñoo xam ni xarañ nañ ci bay comme ISRA mm. am nañ fii si suñu université yi ñoo xam ni c'est des chercheurs mais est-ce que ñu ngi leen di sóoraale di leen boole ci li nga xam ni mooy la politique agricole du Sénégal malheureusement bu fekkee suñu politique agricole dañ ko natt rek ci nawet Mm-hmm. ak noor dina metti alors que war nañu fexe ay technique mm-hmm. ba même bu dul nawet ñu mën a bay parce que tu me parles de la zone des Niayes comment on va faire pour récupérer euh, ndox yi nga xamante ni mm-hmm. ndoxu inondation la ndox yi nga xamante ni moo doon dem ci ci onage nan lañ koy traité waate indiwaat ko fexe ñun ñu mën ko utiliser pour def du maraîchage agricole euh, ñu nekk dans la zone euh, du fleuve Sénégal ñu mën a def ay techniques agricoles mën a def irrigation ba nga xamante ni buñ ko jàngale irrigation même en période de crue wala dex bi kiiwul dina mën a am ndox pour mën a pour mën a bay je crois que ci loolu la ñu waroon dem et puis façon jàngale bi ñuy jàngal ñu ñu soppi ko jàngale tëpp ndëmbar a vëla dëbba du jàng kese nañu jàngal nit ñi ñu am ay école nga xam ni baykat su jógee da nga koy fonk yeneen dëkk soo gisee baykat da koy respecté mais Sénégal soo gisee baykat da ngay foog ni yalwaankat la wuñ départ bi tamit ba départ bu ñu ko fausé du tey départ fausé nañ ko depuis cinq ans ah. mhm. ça malheureusement je le dis parce que Mamadou Dia bi mu ñëwee on pourra parler mhm. mhm. euh, moom pour moom euh, développement bi daf ko waroon basé à partir de la ruralité c'est-à-dire baykat bi nekk au centre même de ses préoccupations moo tax mu doon teg ay coopératives agricole maintenant système boobu mu bëggoon teg ça n'arrangeait pas ñi nga xamante ni mooy ñi géré woon euh, traitu gerte gi malheureusement ba tey de ba deux mille vingt et un on a un problème de souveraineté. Mhm. Euh, souveraineté nag moom suñu bopp. moom suñu bopp non dafa des seen bi sa mhm. communication moomoo sa bopp say tali moomoo sa bopp ay autoroute à péage tubaab bi ñoo ko yor ndox mi ñuy naan siège mhm. directrice bi ab tubaab la France au moom moom. moom ndox te pourtant te pourtant siège bu mu ñëwee dañuy dañuy jàppoon ni peut-être dina xaw a tane. SDE e, mais bon. dañu constaté surtout semaine yi ñu génn nii yi ñu nekk nii presque sax ba léegi ndox mi mi ngi manqué ah. mais mais mais grand surtout zone yu mel ne ay ñaari tali ay. grand waaw mais fu la neex man damay root 4 heures du matin. Pikine bidon 10 litres lay root. bu léegi nag seddaay bi boo ko rootee boo xëyee bu ko sango day sedd xam nga foo nga tàngal ndox mu nekk beneen charge mais je te dis. Uh-huh. Euh, dafa am léegi-léegi bi ñuy wax ci santé réew dafa am ay farata. Mm. parce que ndox c'est vital. grand ñun d'accord mm-hmm. bu ñu demee ba am jafe-jafe. eau potable waaw nga xelli ndox mm-hmm. xonk cur ça pose problème mm-hmm. ñu indil ñu fi jële fi SDE indil ñu ñu ñi ñuy mbubboo naan xaw ma Sénégal musul nekk Sénégal Suez la tudd ab française moo ko jiite mm-hmm. donc su fekkee France moom moom mooy gérer suñu ndox France mooy gérer suñu télécommunication suñu koom-koom suñu lépp France moo ñu ndenge ñun kañ la moom suñu bopp c'est ça euh, bon en fait waxtaan bi xam nga c'est intéressant heure bi di dem euh, ba sax doo constaté ndax heure baa ngi di dem mais ñaari point rek la ñuy waxtaanee ah ñu dem ko téjee émission bi tax doyalu ñu sax d'ailleurs alors première premier mai travailleurs yi chaque année dañuy jël seen benn cahier de doléance jox président Macky Sall di xaar ay solution ndax corona bi moo tax du ñu mën a marché ak yooyu benn yaa ngi gis benn usine chinois boo xamante ni jaru ñuy jaar sutur bi yàggul dara euh, même pas deux jours ñi nga xamante ñoo doon liggéey foofu dañ ñaxtu parce que dañ doon leen doon dàq et que ñoom si li ñu wax mooy bu ñu leen dàqee chinois yi dañu leen wax ne dem leen justice du mujj fen et d' ailleurs loolu sax moom moo am ci société sénégalaise yu bari yu nekk si bi. Hmm, hmm. donc loolu nañ nga ko gisee ak premier mai bi bi nga xamante ne mooy annoncé demain. ah mais c' premier mais moom gars yi ñu seen cahier de doléance mu fekk bu daaw bi ak bu daawaati géej bi ak bu daawaati daawaati géej bi hmm. mais rien ne change beneen bi. Euh, liggéeykat Sénégal malheureusement àq bi mu war am amu ko et d'ailleurs. Euh, ñëw si dëkku jàmbur. voilà samp fa sa usine ak société intérim yi mm-hmm. mais li ma bëgg à la base ñun suñu réew sax booy liggéey sax liggéeyoo pour am da ngay liggéey pour nga mën a xëyaat suba. Mm-hmm. xaw ma ndax tu m'as compris. c'est-à-dire liñ lay fay méngoowul ak sax sa effort. maanaam ñenn ñi dañ leen di fay salaire juste pour ñoom ñu survivre pour ñu am lu ñu lekk pour ñu am lu ñu naan et loolu Euh, cette répartition des richesses cest à balaa nga wax wàllu xëyu ndaw ñi ñaari moo fi am précarité d'abord liggéey ñuy jox nit ñi liggéey bu précaire la pay mi demee wut noonu liggéey boo xam ne pour nga lekk dund rek soo xëyee ñëwaat euh, beneen bi mooy yenn façon liggéey yoo xamante ni nit ki ci condition de travail yi muy nekk mm-hmm. kenn aaru ko amul benn àq amul benn yenn amul amul euh, assurance amul dara d'ailleurs bu feebaree sax amul prise en charge mu mel ni lu clandestin état bi toog di seetaan te nga yore inspection du travail waroon na saytu condition wu liggéey ni donc foofu état bi da ci fayir beneen bi yow munoo dem dëkku jaamur di fa exploiter ay nit ak impunité mais ñun Sénégal dafiy am te duñ ko wax ma j'habite juste à côté de l'arène nationale à Pikine mm-hmm. chinois bi ñu fay liggéeyloo Sénégal ay journée mille huit cent lañ leen doon liggéeyloo mais Sénégal ñoo koy nangu. journée 1800 manœuvre nga gis. ko gaañ sa morom nangu voilà condition yu extrême parce que am na koo xam ni ñàkk na pexe ñàkk pexe ba am na koo xamante ni peut-être buggul toogaay bi il faut mu jóg na sagal bu xam nga Sénégal ak le le nom liggéey. ana ñu ne la xëy na. xëy na sag waaw moom sag boobu la ci am fekk mu ngi ci souffrir. parfois mu ngi nekk ci condition yi di metti mënul wax nga gis ku nekk ci entreprise ay at du am contrat luñ koy wax. prestataire jëmale suba tey bañ na ko ba société intérim yi ñoom ñooy dund ci ñàkku baadoola yi foofu la sénégalais toll euh, fan yi bi ñu defee grève bu essence lan lañ doon grève xam nga ko chauffeur camion yi nekk ci ci ci carburant ñoo sonn ci traitement mais parce que payoor mu ñàq faare lañ leen di fay pompiste yi nekk ci station yi ñun ba am na jamono boo xam ne bàyyi nañ jàng université mënuñu toog dañu dem ñu dem taqale dem nekk pompiste mais da ngay gis précarité ak condition de travail te pourtant yaa ngi exposé ci carburant. Mm-hmm. amul dara loo xam ne accompagné sa liggéey no bul fàtte ñi liggéey ci mbalit mi par exemple. Mm-hmm. ñooñu ci yenn condition la état bi leen ay milliards. non mais waa SIAS la. Mm-hmm. SIAS SIAS mooy ñun bi ñu nee xanaa nga doon dégg après dañ ko liquider dem jox euh, nu mu tudd. ama Sénégal ama Sénégal après jox nañ ko fi Veolia maintenant état wu Sénégal moo nekkoon entreprise yooyu entreprise publique la woon mu liquider ko donc su ko liquider dafa war a fay travail rif nekkoon seen droit donc état Sénégal amee na la un milliard trois cent millions donc président Macky Sall mooy kiy jël dogal te du ko def jëloon na dogal ne dina ko génnee ci wàllu budget Sénégal fay leen euh, ñooñu tey am na ñu feebar am na ñoo xamante ni seen lépp ñàkk nañ ko Euh, donc muy les travailleurs de la SIAS. et li ngay wax noonu aussi dañu am jafe-jafe doo xàmme parce que mbalit mi yëfu politique lañ ko def parce que bu njëkk ba dañu amoon euh, li ñuy wax entaat Kadakar nga xamante ni c'est les collectivités territoriales ñoom ñoo doon gérer mais la vérité mooy mbalit mi bëgguñu woon Khalifa Sall ko parce que affaire politique la. mbalit mi ay milliards c'est de l'ordure business moo ci nekk ñu nangu ko indi ICG donc ba tey Dakar continue quand même euh, à une ville sale maintenant il faut pas nag mu nekk nii lis parce que c'est à saluer ICG def na ay effort yu bëri ñu ngi jël ay ndaw pour ñuy nettoyer et cetera ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ay jéego mais je crois que fi nga xam ne moom lañ waroon tënk waxtaan bi mooy Sénégal non seulement liggéey jafe na fi mais boo amee liggéey condition yi ngay liggéey moo gën a métteeti parce que fonk ñu respecté wuñ doomu aadama maintenant état boo xamante ni amul fulla amul fayda sàmm njabootam ba chinois yi ñëw fi di def comme traite négrière ci ay conditions yi extrême di jël ay sénégalais di leen sur exploité non seulement duñ leen fay amuñu droit syndiqué amuñu droit fuñ ko jooy loolu jafe-jafe la mhm. bon bëggoon nañu un peu tamit waxtaana ci benn usine benn usine boo xamante ni ñu ngi ko samp fële ca Kédougou bu tudd Barigol moom yoroon na état bi cent milliards ba état bi du ko yóbbu si yoon jamono ji ñi ngi layoo ak état bi ndaxte eh, ay eh, fiscal yoo xamante ni da ko waroon fay impôt gi demee noonu alors bëggoon nañ ci ñëw mais bon dañuy waxtaane dañuy daanee la sport ndax ku la xam-xam ni Pikine nga dëkk <laughs> Cheikh Pikine nga dëkk te combat bi tey ñu ngi liir si eh, suñu lamb comme comme quoi di d'ici peu dinañ jàpp date bi pour bëre ko si si saison ren bi hmm. Ama Baldé Modou Lô euh, nga wala Pikine waa nga rek non boo ma laajee dama lay wax. kon Pikine la koo ku ma faral Ama Baldé laa faral. Ama Baldé nga mais parce que non seulement. waxoon naa la bëgg ma si àddu mais nga ñëw ba si émission bi dugal ko. léegi man Ama Baldé laa faral. parce que ñaari ginaar sax bu ñuy xeex di nga am koo faral du dëgg. mais Ama euh, Baldé yan sens la am ci combat bi boo doon non boo mu bëggee def analyse mbër mënuma ah, analyser parce que dama far ba pare mais mais mais far terewul nga logique. logique pour logique euh, d' abord il faut dire que Modou Lo c' est un adversaire coriace mm. euh, d' abord il mérite parce que Modou Lo quoi qu'on dise euh, bi muy ñëw ci làmb parcelle amul woon mbër bu am dayoo wala dara c' est grande banlieue Modou Lo lu mu am mérite moo ko may mérite boobu mooy jàng na. xeex na ñeme na dëggal na boppam te am na fit parce que amaana dijju fi dijju bu garaaw euh, eggu fii fu ñeneen ñi eggul mais moodloo boo ko yàggee suivre da ngay gis ni sañ-sañ la mos a demee et ci làmb aussi euh, kenn dégg ko ci écart il est très respectueux ñafe na ba egg fi donc même roi des arènes bi mu jël jomb ko tey dañ doon wax làmb Tyson am na fu mu ko yóbbu et cetera mais Modou bi mu ñëwee aussi Euh, gis nañ sax beneen façon ah donc euh, adversaire ku ko am aussi da nga koy respecté te ku ko am aussi di nga di nga dem liggéey parce que Modou Lo caaxaan yëngalu ko mm. maintenant Ama nag suma suma suma su suñu suñu xarit la suñu dëkkandoo la doomu Fallaye Balde la mm-hmm. te ñun xam nga Pikine ragaluñ loolu ragaluñ loolu yaa koy baax de non dañ koy baax parce que dañ koo xam parce que Ama ñu ak moom depuis ñu nekk ay xale mu nekk ci mbapat xam nañ ni mm-hmm. am na sañ-sañ Eh, tey su fekkee da ngay xool làmb da ngay xam ni Modou Lo ñi mu dajeel ñëpp ku ku amul fit du dajeek moom kuy sóoraale Modou Lo wala ngay calculer eh, soo jaalee ci Modou Lo da ngay ñàkk parce que Modou Lo eh, il est imprévisible donc su fekkee ni yow ñi mu doon dajeel yëpp sooy xool ñi muy daan ñëpp gars yi dañ koy calculer dañ naan bu ma duggee loxo bi dina jóg ak lii nangam. te ñun ki ñu am ama ragal ama du calculer day ñëw prip mu dox si kawam. ma daal li ma la mën a xam combat buy neex la mais maintenant euh, li beneen plaidoyer peut-être euh, bu ñu waxee làmb démb yaa ngi gis rëg-rëg maa ngi koy mm-hmm. seetaan démb si mm-hmm. MMA bi. Mm-hmm. mu am kaw alors. combat bi mu doon gagné dama ko doon seetaan mi gis rëg-rëg muy gagné mais j'avais vu que rëg-rëg dafa amoon problème mu garde. Euh, il a une garde non xeexee baaxul quoi. voilà il a une garde basse donc rëg-rëg. li mu gën a favoriser mooy làmb parce que nitu làmb la donc parfois soo doon xool. jàppale waaw day def close combat bu waa ji naree attaqué rek rek day dem mu fermer euh, distance bi jege adversaire nga xam ni su ko jege. da lay taq léegi bu la taqee rek da lay rek après continuer ça veut dire loolu moo nekkoon technique am donc dafa am ay insuffisance yu yu mu yu mu yu mu feeñal ci adversaire am bi parce que MMA tànk loxo yëpp ay jog donc euh, il faut que aussi ñi nga xam ne ay techniciens lañ Sénégal moo xam ñi def taekwondo moo xam ñi def karaté yi et cetera ñu gën a encadré yu mel noonu pour ñu produire lool beneen bi ma je trouve que du point de vue culturel et sportif parce que lamb à fois culture ak sport mm. donc japonais yi ñu mënee jaay seen sport ba ñu koy toog di ko seetaan euh, wala américains yi valoriser seen boxe c'est à nous ñu valoriser li nga xam ni mooy sunu sunu sunu sunu sunu làmb mm-hmm. euh, di di di wax ni rek aussi di appeler au calme et la sérénité parce que sport la mm-hmm. parce que ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ay jeunes lañ làmb ji buñ ko rafetalee mu rafet mm-hmm. bu ko ñaawalee mu ñaaw Euh, di ñaanal yàlla naturellement man euh, booy ñaatam laa faral la. booy ñaa laa xam nga booy ñaa booy ñaa booy ñaa booy ñaa dafa am combat mook. Euh, ñaari combat lañu ak loolu mais mu bëgg ñu avancer un peu si si Balla Gaye parce que voilà ki ki tëgg combat foog ñu respecté ko tuuti. kenn la maanaam. ki tëgg combat Balla Gaye. ki tëgg combat Boy Niang Tapha mais combat non non mais attends xam nga Sénégal dañuy dañuy confondre benn affaire. Hmm. par exemple combat boobu ñëwagul. mais communication bi dañ ko basé wu ci Balla Gaye alors que gisuñu ni ñi ngi yàqal. mais mais mais non promoteur bi sëñ bi sëñ bi le problème le problème c'est pas yàqal. Hmm. combat yëpp combat la. waaw combat combat bi la war a wax. non non combat gis non combat bu gis combat la mais nag sëñ bi sëñ bi. problème bi Balla gay la yàlla bindee noonu Balla Gaye la yàlla bindee noonu. Ah. man man dama lay wax ba Balla Gaye. Balla Gaye day jaay koom <laughs> day bëre. waa léegi te comme ñun daanoon nañ Sa Thiès. Eh, mais Tapha aussi Ama daanoon na ko. ñu xeebuñu Tapha ñu mm, mm. euh, ajuñu Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp ay adversaire waaw dañuy ñaan yàlla rek. lu may daanale. pour ñu émission bi jeex na. yaa ma jaxase waa Sénégal di ma won ni man Pikine laa. yoo <laughs> xam nga ne boo waxee Pikine rek après man dootuma nekk chroniqueur supporter laay nekk. parce que Pikine ah, laa dëkk mais non parce que daf ngay analyse bu bu pertinent quand allah. Ah. kontaan nañu bu baax a baax. mais maa la gën a kontaan euh, di wax ni rek euh, ci weeru koor gi weeru yërmande la. Mm-hmm. Euh, ensuite nañu gën a defaru. Mm-hmm. donc defaru bi nag li suñu maam sëñ Saliou doon wax nañ jaamu yàlla ci jaamam yi. Mm-hmm. Euh, parfois nga gis nit koo xam ni miskin la tàllalul loxo di kuy tàllal loxo rek moo moo ñaax am na ku nekk ak yow fi nga dëkk dans la dignité ci sutura la ko wax mm. amaana am na loo xam ni mënu koo mënu koo njàmbat soo ko mënee dimbali te yàlla tax occasion la nga def ko ci sutura mm-hmm. mais aussi euh, weeru yërmande la weeru jàppalante la euh, nañ ciy defar waa xam nañu suñu classe gi sikk nañ dëng dëng boo xamante ni mm-hmm. ci occasion yu mel nii rek lañu mën a am pour euh, defaru pour baalu ñëpp ak baal ñëpp ax parfois nag kàddu yi dina dëgër parfois euh, nañ ñu ko jéggal parce que ay ndaw lañ mais encore que euh, lii moom coup gël la mënul deñ parce que jàmbaar mënuñu toog ay ay liir mm-hmm. faatu laq après du am responsabilité du am suite on va faire deux jours trois jours après on va chercher des boucs émissaires on va te dire oui am na agent bu waroon nekk de garde wala ñu ne la directeur hôpital c'est pas ça le problème lii c'est un échec de notre système sanitaire. suñu système sanitaire nag ñi ko yore dañ ci am ah, responsabilité. parce que sénégalais loolu moom c'est un cri du cœur et ça me fait mal parce que. parce que boo déggee benn ndaw si nee na la euh, bii mooy ñetti yoon muy am doom muy dellu. léegi imagine moom fu mu doon jóge Barkédji jóge Barkédji ba Linguère pour mhm. nàmpal doomam delluwaat mhm. après il vient comme ça si drame bi mhm. après on passe à côté comme si de rien n'était il faut que dans ce pays qu'on apprenne à situer des responsabilités et à désigner des coupables et à les punir tu réclames la démission de du ministre Abdoulaye parce que moom il s'occupe de ndaw rabine sanitaire voilà alors euh, ça a été un plaisir quand même euh, de vous servir Ouzin ngeen doon àndal ci seen émission ak euh, gise ak tey ñu dalaloon ki nga xamante ni moom mooy euh, Cheikh gis ngeen xam nga waxtaan bi foog mu temps bi foog mu dem sax du duñ si bàyyi xel ndax euh, c'est tellement intéressant li muy analyser dafa am solo et que voilà ñuy kontaan bu baax a baax ci ñëw bi mu ñëw fii di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen gise ak jaajëf.